doomu aadama ni ko yàlla sàkkee mën na féete lépp kaw waaye it mën na doon lu gën suufee te sax boo xoolee di nga gis ni nit dina romb étape yu bëri te wute ndax xale bu xàmmewul ràññewul ban wutee la am ak mala te it mag bu yàlla jox xel te du ko jëfandikoo kooku mala sax daf koy tane waaye nit ku nite dellu jëfandikoo xelam fay daal dundam ba noppi xam xàmme te nekk ci mission bi waral yàlla sàkk ko kooku day féete kaw sax malaaka yàlla day wax ci alquran laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim thumma radatnaahu asfala saafilin ñun ñoo sàkk doomu aadama ci sàkkin bu gën waaye dina gën a suufe lépp bu dee dafa waroo ak li tax ñu sàkk ko fi jamono toll nii yitte doomu aadama yu bëri sutul yii may bëgg a tudd lekk ak i naan nelaw ak i sëy ak dëkkuwaay kon loolu day tekki ni yépp ci nit ñi seeni yitte féetewul kaw yitte mala yi te yi ma tudd nii dafa day xéewal yi nga xamante ne dañ ci war ut kattan ngir ñu mën a yegg si suñu objectif seytaane nag nax ñu ba labal ñu ci utumay xéewal yi nga xamante ne nii borom bi subhaanahu wa taala daf ñu ko yenu ba ñu fàtte ñun suñu wareef sa dund gi yàggul te ndeysaan ci nga war a defar sa ëllëg ëllëg goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem dafa am benn buur bu ma sawoo ñett ci ay jaamam ne leen dama bëgg ngeen dem ca tool ya wittal ma saaku mango ku si nekk daal di gàddu saakoom wutali tool ya ba ñu yeggee ku njëkk ki te yàlla tax sonalul boppam daa yegg rek tàmbalee for mango yi nga xamante ni nii dañoo nëpp waddee ca garab ya daal di koy feesalee saakoom ba noppi naan ci xelam buur de daf ñoo bëgg a sonal rek waaye amul soxla ci lii mu ñuy sant ñaareel bi moom moo tane ndax moom mixage la def jaxase yu baax yi ak yu bon yi ba am ci saam ñetteel bi moom daa di yëg ci kaw garab yi sonn lool ci tànnam fexe am màngo yi mu jàpp ni war na neex te saf suukar mu daal di ci feesal moom saako ginnaaw ba ñu delloo seeni kër buur bi woolu leen ñoom ñett ne leen ku nekk na indaale saako ba ñu yegsee buur bi daal di wax garde yi ku si nekk nañ la jàpp tëj la sa saaku ci diirub weer ba fan weeri fan yi matee buur bi daal di digle ñu ibbi leen ba garde yi demee tijji ku njëkk ki dañ ko fekk mu dee bu yàgg ndax moom ay mango yu nëpp la daan lekk ba ñu ibbee ñaareel bi dañ ko fekk mu sonn lool waaye deewul ndax moom du mangoom yépp a bonoon amoon na yi ci baax ba ñu yeggee ci ñetteel bi dañ ko fekk mu nekk en forme dara dalu ak wér bu mucc ayib buur boobu mooy yàlla ñun ñooy jaam yi waaye mango yi mooy suñuy jëf yàlla dafa wax ci alquran fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara képp ku jëf lu doy ni pepp ci lu baax di nga ko gis waaye képp ku jëfit lu doy ni pepp ci lu bon di nga ko gis asalaamaaleykum